sëriñ bi di ab bërëb mi nga xamante ne taalibe yu bari fii lañuy ñuy déparé ngir rek màggali fii nag ab xumbaay lañ fi fekk waxtaan diggante client kook sa répp nag di tegu rek ci njëgu paas yi. comme niñ koy faral di nemmeekuwee saa su nekk ren itam yi leen njëg dañoo daldi di yokku. paas yu seer ba dee rek. bu dee sept malades bu dee quatre cent six yi quinze mille la fay am na sax ñuy wax dix huit waaw pour l' instant nii moom par oto yi huit mille la ñuy yebe moom. ak mu nekk ab yokkute bi nga xamante ne chauffeur yi daal di nañ ko justifié wee mesure yi nga xamante ne nguuru Sénégal jëloon na ko ci weer yi weesu ginnaaw l'accident yi fi bëri woon. soo demee Touba da nga fay yàgg biir Touba mën nga faa def mat 9 heures doo ko génn. waaw loolu nag bokk na ci ak Versailles yi ñu dindi aussi Versailles oto yi ñu wàññi bokk na ci li gën a yokk paas bi ndax gasoil bi yokk na fi yokkate fi yokkate fi ba seer ba egg ci loolu te ba léegi paas yi oto yi yokkagul ainsi de suite ñu ñëwaat rocciwaat Versailles ci xam nga loolu tamit wàññi porte bagage yi aussi porte bagage li ñu mayoon pour ñu ko yeb auteur bi dañu ko wàññi bu baax a a baax conséquences yooyu moo tax paas bi yokku yokkute nag dérangé benn yoon ñii dig taalibe yi ndax li leen soxal jamono ji rekk mooy wuyu ji wooteeb sëriñ bi. bu doon bu doon hmm. nag dinañ ko amal altine ñeenti fan ci weeru septembre mu nekk ab xew-xew diine bu marqué départ en exil fondateur u bi di Cheikh Ahmadou Bamba. bile xew-xew nag at bu nekk day dajale lu ëpp ñaari million nit foofee ca Touba.